noo ngi am mbégte. di siyaar ñëpp di jiital ci siyaar bi Seex Muntaxa dëgg la. sëñ Ablaye di rafetlu liggéey bi. damay damay seetaan maa mu Moustapha Kane mi ngi fax ci biir. mënatuma ko muñ mën a ko maa ngi joxe ji addiya ndax kii moo toll noonu ci ñun te télévision bi sañ nañ fi lu ne ndax sunu ñaari way jur yi fi ne muy Baye Ablaye ñaari Baye Ablaye yëpp kee di sama mbokk Cheikh Mbacke mais yow moom faaw ma teral la bërki démb laay wax Moodu Mbacke ci am mi ne fii ma ne ko na ma lijjanti numéro soxna si ndax damaa gis mu jooy ci sëñ ñàkk saa loolu ma la koy seeral te man nit bu ba jooy ci sëriñ bi mën a tuta def lu ma naqari ci àddina daan naa ko seetaan waaye ci laa ko bàyyi xel yoonu géej gi xam naa résumé lay doon sëñ Ablaye yàlla daa dogal daaw caravane Mayumba bi ñuy dem maag suñu akasaa mi noo noo dem taxawal leen ko ca Mayumba waaye bi ma ñibbisee dama ne sëñ basum sëñ Abdou Khadr waroon naa bokk ci yoonu murit sart yi wax naa ko sëñ Abdou Karim ku jàngi ba ñëw nu ne la demal Gabon te boo demee Gabon na nga jàll Mayumba waaw ndax juróomi at yoo xam ni taw suba taw ngoon te Gabon forêt verte la boo xam ni ku nu fa yóbbu sa xel dina nekk ci leneen parce que muuruwaar la woon deewukaay tubaab yi tànnoon ko pour yóbbu fa sëriñ bi ngir sànk ko waaye fi may tënk rek pas-pas rek laa bëgg wax tuuti rek parce que man damaa joxe si woon àddiyee wóor na jëmmi sëñ Touba man damaa yem Touba TV rek di béggee télévision yi noo ngi siyaar Bougane Gueye Dany di kenn ci ñun baax lool bëgg Serigne tubaat te di ko liggéeyal waaye li nga xam ne moom laay wax rek si ñàkk saa yaa ngi fàttaliku bi nu ñëwee ànd ak sëñ koso mbàkkeem sëñ Muntaxa ku baax ba wàcc descente bi ñu ne ci dex gii la daan jàppoo wàcc montagne yi sori foofa la ko sëñ Modou Lo Dagana fekkoon te sëñ Modou Lo Dagana war naa tax taalibe yi nàmmaat seen pas-pas ba nu xam ne dafa gunu dara nu dëgg la dëgg la at la wër sëriñ bi at fii la jógee di dox di dem dëkk bu mu yaakaar ne sëñ Touba nga fa ñu ne ko jàll na foofu mu dal di continuer sëñ Moussa dafa lim dëkk yim jaar dane ku weddi laaj Cheikh duloo Lo na ba mu laataa gis Cheikh Bamba booba sooy roñ xëye na kooku guy bésub talaata na man ci géej gi bañ naan xatmaata ba weeroo dellu see ci déwén saak bis ba lay deera seeru Bamba ngir pas-pas ba ma lim dëkk yim jaar dem na ba yëre yim sol daggatoo ci yaram mu ne dina gis sëñ Touba fase ak ak ay soxnaam tàggoog njabootam ne day gis sëñ Touba jaxala manding la dox ci gaaw romb Sierra Leone fanaan fa gaaw xëye ba sarlong ba jàlli biri bi laaj sëriñ tubaa weesu arab yi dox mën a róoya jaari Grand Léo wàcc Grand Popo fanaan li kar Léo xëye romb kap dimbal ma di seen dunub tëbuk te naan làmbal ma xëye fa jëm Cameroun ñoñ kurmaana ak timileeku gurbo ñu néewi mu romb leen tefesu su jëm beserwel yi laaj Serigne Touba ñu naan ko Bafouly muy Grand Mbassa bawoo Aboja tefesu weesu Abidjan wër suuf sa dox Akara tefesu weesu wiinda laaj Serigne Touba ñu naan ko Wida mu war ca gaali géej jaar Lagos jaar ci réew ma ak saa Cap Kossé romb Bata dem Douala laajte doomi doomi Astawaalo Porto Novo Cotonou Siti Kama romb na leen wàcc Gabon ñu naan ko mu ne keroog la laaj Seex Bamba nam sa kayita mu naan ko wéy na konga naa la seeta mu ne kookaa tabax taaxi Serigne Touba fa daaru mar naan kileer woon fa gaaye mu daal di dem kable pisa laaj bamba ñu naan ko yàlla jàng wuy maayomba mu dem Luango Luango bi mu fa taxawee bato bi mu dugg lañ ko ni ñii dëkk bi ñuy wàcc parce que maayomba amul amul port bato bi ci biir géej gi lay ser ñu doog a wàcce passagers yi dugal leen ci gaal yu ndaw indi leen comme moom mu warta wàcc mu ne naa defi pexe porté malaat pour bañ a jàll ñu jox koy comprimé mu mëq waat bi pour bëgg a gën a fee feebar technique yàgg na ci yoon wi ñu wàcce ko maayomba di ko faj deux jour mu génn day doxantu yem ci benn nit ku ñuul mu nuyu ko mu ne ko noo tudd mu ne ko Blaise Diagne muy Blaise Diagne mii ñu tuddee aéroport bi tey li ko may tey turam du fay gaalu gaalu këyit rek la la la yenuloon Sëñ Tuubaa indil ko ko. ak xandi ndox ndox. Blaise bi mu ñëwee ne ko yow looy def fii mu ne ko damaa feebar ñu wàcce ma ci genn gàll at laa laa laa génnoon Sénégal mu ne ko looy wër mu ne ko sama sëriñ lañu fii indi woon daal di jooy nee nañ mu ngi dundu ñi ne dundul mu ne ko kuy sa sëriñ mu ne ko Cheikh mat Bamba Blaise Diagne daal ne ko yow xam naa fa sa sëriñ ne waaye nag ci xuru metti wi ne fii la léeg-léeg nu dégg ko fa léeg tubaab yi dugg fa sax dawaat génn ndax ba badrin kiram ñoo ko daan wéttali foofu suñu saaka wax na ko muy saafanteeg ahlu badar ñëpp rang defi gawar badar de tuuti mu dekki waaye keroog borom garaat yaa ko seex wax na ko tuddati na leen tuddati leen waaye damay tënk rek parce que lii indiwu ma woon wóor na jëmmi sëñ Tuubaa kii laa mënta muñ waaye sëñ mu la dagana ne ko yow bu ma duggee ci àll bi yow bu la neexee doo dugg waaye man bu ma demoon bañ ñu ne ma fii la làqu sax danaa fa faatu waaye duma dem te gisuma ko ndax loolu laa façon muy pas-pas ci murit Blaise Diagne ne ko boo teelee génnaat ma ma wax nit ñi ne leen génn nga dama koy résumer rek parce que lu gudd la lu gudd la fi mu jaar yëpp sax dama ko tënk mu ne ko boo teelee génn ma jàpp ne génnaat nga waaye boo génnul ma wax nit ñi ne leen sénégalais bi fi nekkoon ñu koy faj faatu na ci àll bi ndax rab yi gën a danger foofu lañ nekk sëñ Modou loo Dagana ne ko nangu naa dal di pénétrer àll bi di dammi bant di jàll bi mu ñëwee ba sës ci géej gi xam nga yow dem nga Mayumba géej gi ak camp bi ak église bi ñoo taxaloo fi nu yóbbu woon sëñ Tuubaa bu doon koy rëcc sax mënta rëcc mu ñëw ba taxaw ci géej gi gisut kenn mu daal dina xëy na daa ne beneen wet ba yàgg mu ne naa lii këti xas si dëgg lam yabdu bi mu koy jàng ba ci huwa nabi wa rasul wal xalil wax wal abib wa imaamu ndekete sëñ Tuubaa ko jege waaye xàmmewu ko woon ndax ëkk la ko tegoon ndax lënd yi taq sëriñ bi ak gunóor yi ko samak yooyu gott yooyu mu daal wa dalil ji bi ko sëñ Tuubaa waxee nee na fi ma taxaw dafa tremble géej gi yëngu nee na mu daal di koy laxasu ne wuy sama sang baa ngi daal di summi mbub mi di ko upp sëñ Tuubaa toog ba yàgg na ko Ahmadou Lo ana waa senegal mu ne ko ña nga fa Mbàkke mu ne ko ana Seex Anta sama rakk ju baax ja ana Ceerno ak dongo ya di wax si foofu sax sa Musaa Ka nee na sëñ Tuubaa big na ngir làkk olof gim gëj dégg te tey am na ku mu ko waxandool moom la sa Moussa Ka di wax naan keroog la baam ba njëkk a gis minari jaal buy wax olof te naan dama ni dëkk Sénégal yoonu géej gi xaju fi waaye sëñ Akassa na nga xam ne àddina bépp àddina bépp ngi lay ñaanal maa sëñ Moussa Fa xaw ma sax fi ma jaar bi may ñëw barke sëñ Tuubaa li ma doon dawal sax jaaduwul barke Seexu Xadim jërëjëf xanaa xamoo ni